daw eh, jaajëfal ko bu baax a baax Birahim mu eh, li nga li nga xam ne moom la ki nga xam ne moom la Ousmane ko jàpp fi ne eh, ni moo waral ñu dàq procès en appel boobu nga xam ni moom moo koy wutale ak Mame Mbaye Niang moom daal jàpp nañ ni président bu cour d'appel dafa gisagul ay àttekat yoo xam ne li mu bëgg dinañ ko ko nangoo defal. waaw kàddoom la. xalaatam la gëm-gëmam la dañ ko koy nangul. gis nga euh, Thiala su ma nekkoon président ma ne appel bi may woote pour jaro lu sincère la ci man lu dëggu la te damaa bëgg réew mi jëm kanam xam lu may njëkk a def euh, yow Mame Mbaye mi porté plainte Sonko euh, yow procureur mi def appel donte bu leen neexee am ngeen ci droit citoyen sénégalais Mame Mbaye dañ laa diffamé nga jàpp ni dañ la war a réparation war naa am am nga ci droit waaye ndax dañoo jëm ci ay échéance électorale yu am importance li ma bëggoon mooy lu ñu tàppe xol yi xam nga luy tàppe xol yi mooy lépp luy procès boo xamee mën naa ñàkk ñu effacé ko dindi ko am na ci sañ-sañ ne ni ah Mame Mbaye sa ci man nga bokk dindil procureur ministre la justice nee ko na na bàyyi am na ci sañ-sañ ñu dind ci loolu mu jëm beneen procès mu jël ci wàllu ay Adji Sarr mm-hmm. loolu euh, peut-être c'est certes privé mais am nañu possibilité peut-être waxtaan wala xool lu ñuy def ba nga xamee ni du indi tension fitna am na mënoo nekk ci fitna ne ni yow mi nga xamee ni parce que Sonko a raison de dire que je peux pas aller répondre alors que j'ai un pistolet sur la tempe mën nag ko xalaatee noonu xalaatam la gis-gisam la c'est un homme politique aussi euh, dina jouer un peu sur euh, les la situation pour dire que mënumaa dem parce que ñu ngi may xoñoñal ñu ngi may xooqatal waaye ay mbirum privé la moo def ak deful loolu yoon moo ko war a wax moom yoon boobu muy wax Ousmane Sonko déjà moom euh, il est cap euh, appelé à être candidat pour la présidentielle de 2024 il est même appelé un jour peut-être su ko yàlla defee mu nekk président de la République mënoo ñëw tey force de défense et de sécurité nga leen di xupp lu nekk nga wax ko ci ñoom hmm. mënoo tey magistrature justice ci boppam lu nekk nga wax ko ci ñoom te ëllëg ñaan nañu yàlla wala yow ñaan nga yàlla nga jiite ñooñu ñëpp hmm. donc il faut même dans le discours même si ce sont des propos politiques mm-hmm. xool na mooy waxaatee par rapport ak ñooñu mm-hmm. euh, ay la yéewoon c'est son droit nag ndax euh, ku jàpp ni dañ la bëgg yóbbu à l'abattoir euh, bëy bi sax dina dina yuuxu buñ ko mm-hmm. bëggee buñ ko bëggee tër teg ko jël paaka jaarale ko ci putam massa koo xamee ni jàpp nga ni ay nit a ngi sa ginnaaw mais comme je dis et je le répète bu doon dañu bëgg tey nii dialogue bu sincère bu franc boo xamee ni du am peut-être tension bu koy lal ci suuf mais yenn détails yi nga xamee ne mën nañ ko dindi nañ ko dindi. Mm-hmm. ba nga xamee ne ñëpp nañ bokk là où euh, Sonko a raison c' est que on peut pas aller en dialogue fekk yow déjà yow li la jo li la li la li nekk sa kaw rek. Mm-hmm. doy na la sëkk. pour dem dialogue nag bu demoon léegi nii xam lu ñuy wax. Mm-hmm. ni da ngay deal tey bu demoon si dialogue bi nii nii tout de suite nii dañ ko naan bokk nga ci deal bi parce que. la nga bëgg mooy ñuy effacer mbirum Mambay wala effacer mbirum Adji Sarr wala effacer na ñu lijjanti lool ba noppi. Mhm. ñuy doog a mën a wax dialogue jeune ne pense pas qu'il puisse y avoir un tant que procès yooyu jeexul. Mhm. c'est pas possible pour man mhm. ou dialogue bu sincère bu franc mhm. tant que loolu jeexul parce que quand même il reste l'un des principaux leaders de l'opposition mhm. bu ñu sukkandikoo ci 2019 il était troisième ci élection présidentielle dont le deuxième dit que c'est lui le chef de l'opposition ça c'est un autre débat waaye li wóor mooy ni eh, on ne peut pas aujourd'hui débattre sans euh, les forces vives de la nation dont des forces politiques ku ci mel ni Ousmane Sonko ak Pastef